Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Si vous gan nga ci kër gi nag bouton abonnement bi teg bul fàtte la cloche de notification bi ne ngir bañ a ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage. Assalamualaikum, assalamualaikum. sëñ bi maa Lupa ziar maa ngi lay ziar lu bëre bëri waay yeah maa ngi tudd aminata maa ngi nekk fii si dubaay maa sen. tudd sénégal yeah comme club sénégal lii ni si youtube solo loo xamante ne dafay askan bi tamit dafay yéete ñi nga xamante ne nii xamuñu dinañ mën na xam yaa ci very important moo tax ma jël sa numéro man nag dafa am loolu mu metti loo xamante ne nii daf mu metti mais dama koy bëgg wax mais je ne pas xaw ma fan lay mën jaar pour wax ko mais Sénégal ni ñuy doxalee daal vraiment vraiment vraiment vraiment amul amul ben loi amul ben sens ndax soo Abdou Karim Gueye moom ñu japp tëj ko ah xañ ko koriteem xañ ko weeru kooreem ah mu kooree ci biir prison bi te limu wax c'est normal c'est très très très très normal nit amo lu sa diine devant tout d'abord diine après la neen te moom diine rek la doon défendre diine kase kase kase la doon défendre ñu jël ko tëj ko te booba tey maa ngi xool commentaire yi daal gisuma sénégalais yi ñu def comme ni mu waree comme li si war ñu def ko ci ñu génne ressemblé génne te xam ne kii li mu doon xeexal bañ jàpp ko nii solo la loolooy Sénégal diine mooy Sénégal dañoo war a rassembler jóg Macky Sall bàyyi ko bàyyi Abdou Karim Gueye affaire boobu daal franchement daf ma metti tellement que ma metti te xaw ma fan laa ko mën a jooyee xaw ma fan laa ko mën a jooyee innocent yi rek lañuy jàpp xoolal ni lañ defoon jàpp euh, imam Badara ndaw jàpp ko bu dawut nonsense boo xamante ne ni doo comprendre duñ ko accuser dara dara dara dara amu ñu teg ko ñaata ak prison ah affaire boobu ne fii la ma fekk mais il m'a tellement choqué vraiment vraiment vraiment mon pays va mal doo comprendre franchement nag maa ngi jégalu maa ngi jégalu si wax ji maa ngi jégalu si wax ji vraiment metti na ma daal metti na ma taxaw ma fan laa ko mën a jooyee moo tax ma ma envoyé la message soo amee. Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàtte activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay video yi ni def ay bi ci nekk et maintenant bon visionnage